nekk Kër Maurice di xaar heure bi jot pour ñu départ pour dem conférence ba keroog Maurice Sall mu nga fa Rawane Gueye bu jëppal mu nga fa Billy pay mu nga fa Moussa Gueye mu nga fa Lamine Gueye bu Tëngéej mu nga fa bay Mbaye Diop mu nga fa ñi ma tudd noonu ñépp gannaaw Maurice ma nekk ca mag ña ca barsax ku ci dul bàyyi mbay jóob tey nekkoo ci biir xadara bi ci biir daayira bi waaye keroog law wax nit ñi ni leen mel ni yéen di yéen a ngi xool mbooloo meeg yëngu beeg tël-tël ji mais man sama bët maa ngi ko teg ci bu ñu demee ba daayira bi des fukki nit ah, waaw waxin la waaw du ñëw waaye waxin la man leen bis bu demee ba des fukki nit ku am pas-pas it ma ànd ak yow ñu liggéey loolu waxu lan la mooy du fi jóg wallaay Baye Omar nee na garanti la c'est la vérité c'est la vérité du fi jóg moo taxoon moom ci boppam mu waxal ma boppam ni ma yow mii sax mënoo tas daayira bi waaw ah, nga yëgul nag mooy am na ñuy wër ni Serigne nee na nañu tas daayira bi yëguloo ko waaw ah, ah, ma ko waaw <laughs> ñu ngi def ay tournée wallaay wallaay wallaay wallaay ba tax na ay ah. wallaay wallaay wax na dëgg nee moo waxoon ci foire bi fii ni ñu sacrifié la ma joxe son bopp ñu sacrifié moom moo ma ko gënal c'est la vérité wallaay dëgg wallaay wax na dëgg pour wax nit ñi rek wallaay mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. wallaay wallaay wallaay wallaay billaay billaay ndeysaan wallaay ndeysaan góor gi góor mag lool la wax waaw ah, mu ni moo tax baatu gore gore gi nga wax nii mu ne fa wax bi yépp foofu la ne waaw mu ne am na loo xam ne bu gore gi amul rek jaraatu ko waaw looloo tax bés mu di ma nettali fi ñu jaar ci kër gi ah, fi ñu jaar ci kër gi ba nettali ma li waral mu xëy bàyyi Tiwaawan ñëw ñibbi si ndax yëg ni bu jógewul Tiwaawan ñëw Dakar ñu créer Sëriñ Babacar problème nee na tam moom mu xam ne li muy séq ak Sëriñ Babacar mën nañ ko séq ak fu mu mën a ne man nañ ko séq ne moo tax mu mujj ñëw Dakar bu ko Serigne Babacar soxlaa rek mu décembre nettali na leen ko ci gàmmo gi ni bu masaan ñëw trois heures du matin góor gi ni ko Cheikh Tidiane yërëmal sa yaay ndax boo nee yaa ngi ñëw rek dootuñu nelaw te duñu xam ban heure ngay jóg duñu xam kañ ngay yegsi kenn du nelaw ba nga yegsi mu ne waaye man maa mon habitude toujours guddi rek lay voyager waaye gis nga baat bi ci am solo mooy li mu ma wax ni ma bés sëriñ Babacar dafa téye ci loxoom nii ni ko cheikh mu ni ko la bayka mu ni ko ñi ma bañ yépp yaa tax ñu bañ ma waaw mu ni ko waaye yow itam ñi la bañ ñépp maa tax ñu bañ la mu ni ko kon nag bu ñu ko bàyyee xel noonu rek mu baax. mu ni ko ñi la bañ yépp yi ma bañ yëpp waaw wallaay billaay dëgg la ba tax na kon li am solo rekk moo di yebeel li am te am mooy yebeel jeex na waaye mbañeel kenn du ko bañ waaw sama bàjjan bii ma tudd soxna mul xëyre te yónni soxna yaasin bii ak soxna xadija ñu ànd ak Mansour bii waaw mu ne ufiidukum ilman waaw dafa xas njëkk a bind sax ni waaw mu ni laqad adxaltum laqad adxaltum ma la tuaddu wala tuxsa من آيات السرور والحفاوة في قلوب المسلمين ولأهل الحضرة التيجانية الشريفة قل نكفى جزاكم الله خير الجزاء ببن تسوف نكني أطال الله عمركم وعمر عائلتكم وخاصة عمر مولانا العلامة الشيخ أحمد التيجاني واو kon nag Mansour Seck bi bindal ko ko waaw ma lay xamal ni mbaax ak yiw ña ko bokk rekk a ko bokk waaw ah. moo tax famille paasewul bokk ak ña nga bokkal fa ngeen jëm waaw ah. bu ko defee kon nag dafa mel ni ñu ngi war a jëm ci beneen liggéey waaw ah. bañ a baax day baax de waaw lay day baax waaw dafay baax waaw bu ko defee kon nag la mu waxoon ca conférence su géejawaayam bu jëkk ba wallaay ama du bari bu jëkk ba ba mu tàngee

wallaay wallaay bàyyi man nee na ña ña wax loolu seenug fin nee na mooy ñëw waaw waaw wallaay ndeysaan waaw seenug fin mooy ñëw wax na dëgg wallaay wallaay ndeysaan ah dëgg la wallaay ndeysaan ndeysaan wallaay ndeysaan tax na kon nag ñu sant yàlla ñu gën a taxaw ndax ñaar dafa war a yokk jom réussite dafa war a yokk jom waaw waaye itam weddi dafa war a yokk jom waaw mu tax am na ñu nga xam ni dafa am neneen noo leen di tontoo jeex moy li yalla waxone yonenti bi diko ko am na ñu nga xamni façon bañu bëgge boko topé da ngay tardé yow li ma la sant nek ci rek bàyyi ma ak ñoom aha wallaay deug la on na dëgg nee na góor gi la mu ni jëf moy tontu wax c'est la vérité bu ko défé kon nag gis nga moo tax il faut que nit ñi di teey dama jot benn lettre te ki ko kat nee na Moustarchid la commencé ca lettre ba naan ma moi en tant que njaboot amam Cheikh Tidiane <laughs> naan ma Serigne Pape Malick Dizé la défaillance technique wallaay wallaay billahi, billahi. la défaillance technique est beaucoup plus dangereuse que la technique elle-même pour dire, wane ni paan pan, bi amoon ci gàmmu pan bo xamni xam ni man mii coordonné liggéey bi Baye Omar Sambo mi yamako ko yeguma ni paan amna mu dimanche matin may ñëw ci moom rel li jëm ci góor gi pour yóbbante ko sama ndokkeel mu ni ma dafa am ñu wax ni am na côté yu marché wul ci sonorisation bi falaa ko yëgee et pourtant cent vingt millions de matériel laa jënd ren ci gàmmo gi tax beneen nit bindaat moom itam naan man nañ fi bàyyi sono daayira bi dem di jëli njaay bu deux mille te ni Moustarchid la ma défaillance technique bon na mais défaillance morale moko ko yées te yow bi nga def défaillance morale waaw parce que waxuma la erreur bi mu wax mais bi mu paré amul courage bindu touram ni man un Moustarchid à medina dama xam ni sax du Moustarchid à Medina? parce que kiko bind xam naa ko wallaay wallaay dëgg la wallaay ah nee na sëriñ Babacar daan na wax ne léeg nit wax mu ne ah koo dégg mu ni ñun tiijaan yi xamal ni la mu wax ni ñoom na la mu wax waaw ah, ne waaye bàyyi na ko ni ñun mustarchid yi ne la mu wax maanaam wax ni mustarchid laa ak nekk mustarchid bokkul bokkul waaw ah, ba tax na kon nag yéen a ngi fàttaliku ci sunu biir colonie de vacances keroog dal naa ci kaw waa technique sax ba ruus xaw ma ñiibi la xaw ma ca joxoor yéen a ngi toog ñoom mam xalifa jéen ma dal ci seen kaw man leen am na erreur yu daan am fexe leen ba bu mu ñaar parce que dut saar daan na def bu gàmmu jotee bu sëriñ Cheikh waree wax mu fexe ba rajo yi yàqu waxuma ko ci seen kanam man leen nag erreur yooyu man leen yéen jaaduwul ci yéen mu répété wul ci yéen te la ma xam naa ko wallaay ma ngoog ma ngoog bii du day wàcc waaw parce que du amag du rodeegum du rodeegum waaw du tax na kon nag da boo gisee ñuy waxee ci benn façon bi mooy njaboot yi ñorul ñoo tax waaw njaboot bu ñorul ñooy tax ñuy waxee nenn ni ndax dafay am yenn ci responsable yoo xam ni dañuy téléphoné yeneen responsable yi nekk ci àll bi nan leen góor gi nee na def nañ ko ci gàmmu gi góor gi nee na te danañ ma wax yépp danaa xam ki ko def lu mu wax yépp danaa ko jot ma dem ba ci góor gi waaw wallaay mu ni ma góor gi du wax di nëbbu waaw mukk waaw ba tax na ku yóbbu di tey nanu dafa am ñeneen a leen di manipuler di leen manipuler pour ñu dem wax ci turu góor gi ni góor gi nee na waaw ko defee léeg-léeg nga dem ci voyage am ñu la interpellé ni waaw lu xew ma ne ci lan waaw ah, diwkat moo fi téléphoné nee na góor gi nee na nangam ma ne ah yëgaguma ko nag waaw ah, parce que li ma wóor ba wóor ma Baye Omar Samb mi xam na ko sëñ Cheikh bu dee am taalibe gannaaw ñii ko yàlla booleel may taalibeem bu jëkk waaw waaw lu wér la kooku sëñ Babacar si moo ko def waaw moko bëgg fay wax ko ko ne ko sama ciofel ci yow sax foguma ni man la suñ Babacar a ko def ndax faye la ko mané ko kon kenn mënu ci dara wa nga na kon nak billahi billahi inshallah wallahi mbay ndeysaan wallahi ndeysaan barakallahu ndeysaan ene na suñ Babacar mo wax ni ku ma lebal ker ma fay la guddii mais kon mën nañoo jàpp ni xëy na yaay guddi gi kon tabarkal la bu ko defee kon nag waaw ah, mu ne suñ Babacar nee na ku ko fay ker ku ko jox ker mu ku ko lebal ker mu fay la guddi mu ni kon nag mën nañoo jàpp ni yaay guddi gi kon waaw ah, moom la ñu fayee daal waaw tax na la eh walla waaw mu ngoog wallaay wallaay ndeysaan ba tax na kon na ah, ñu ngi jëm ci liggéey liggéey bu nga xam ni bokkul ak li ñu xamoon maanaam animation daayira bokkul ak liggéeyu tere bi mu laaj ci niveau réew mi ñoo wax Sénégal animation daayira day continuer ci programme yi ñu ko tëralal waaye liggéey bi ñu war a liggéey ci niveau Sénégal ba nit ñi xam kuy sunu kilifa boobu moo tax ñuy wax kooku beneen dimension la mu mel ni ci la bëgg jëm man ah. bu ko defee rek nag li ma leen di ñaan mooy li suñu cheikh waxoon ni euh, ku am kilifa te fayda doo gàgganti ko ci mbedd waaw ku am kilifa te fayda doo gàgganti ko ci mbedd waaw euh, gis nga bis bu ñu demoon ba cheikh gis ni daayira bi war nañ ko tas mu wooma ni ma musaf daayira bi lii ak lii ak lii war na tax waratu fee nekk nañ ko tas balaa vingt-quatre heures ma tas ko mais du ko wax parce que buñ ko tasee moom bu demee ci kaw ñu di ko laaj ci dossier résultat bi mu war joxe bu passé Moustarchidine du ko présenté mukk te wax naa leen photo de famille bi photo de famille bi dem na ba noppi dem na ba noppi ça y est fini waaw ah. bu ko defee li ci des nag kon mooy ku ne dellu ci sa taxawaay moo xam ku nekk fii moo xam ku nekk ci biti changement yu bare ngi changement yu bare mu ngi ñëw bi gi desee ñaari fan waxtaan nañu ko la bayka mu ni ma mag ñi gisuñu lu leer de ci réew mi waaw li ñu fi gis yëpp lëndëm la mu ne ma kon nag taxawaay rek mooy mën a am ba nit ñi duñ ko yëg waaw mu mel ni kon nag taxawaay boobu ñun ñoo ko moom ndax depuis presque at ngi nii ñu di ko yóbbante waaw rekk ndax ñu bari ñu jaaxle ci senegal fi mu jëm waaw bu ko defee kon nag baat ba mu waxoon atom ni réew moo xam ni màbb rekk a ca des ku yëngu yaa yàq waaw réew mu nga xam ni màbb rekk a ca des ku yëngu yaa yàq waaw wallaay wallaay dëgg la ba kon nag bu ñu ci xeeb suñu bopp waaw am lu nga xam ni ak barke rek a tax mu man nekk waaw bu ko lucidité conscience bu tranquille gis nga man buma titul rek bu len tit te nag fas yéenewuma tit incha allah ndax ki ma àndal ah waxin la réponse la ah réponse la ba tax na kon nag na nit ñi taxaw te ñu jël seen responsabilité fan yi passé dañu ma nettali benn wax ñu ne ma benn nit Moko ko wax ca Tiwaawan gannaaw bi gàmmu gi passé léegi nag mu yëngal boppam ba ci yàgg mu ne ah wala yiw yiw wi xewoon ci kursu bi de ku ko xaj nit tooñ nga ko waaw te ka ko wax ku sant si la waaw ni yiw wi xewoon ci kursu bi de ku ko xaj nit tooñ nga ko waaw ni nag bu ngeen demee wax sëriñ Moustapha ne ko na wax sëriñ Cheikh nii ko coow lee bare rekk ay ñi fi ne ñëpp moo leen moom waaw waaw wallaay wallaay waaw ba tax na fan yi passé xale bi yónnee ma message ni ma mag sàngam moo fi jaaroon fii ci kër gi ci yoof nga ànd ak diw ak diw ak diw ñuy ñeenti nit dana mag mi ni ko waxal sëñ Moustapha ne ko nañu sarax recevoir ñu ndax àdduna ngi tukki ah. ni ko mag mu ne boo daan dund ci dara da ca yëg la ngay yëg ba nga xëy bàyyi loola yëgatuloo ko la nga xamal sa bopp yaa ko xamal sa bopp waaw kon nag dellu fa nga jóge woon jot na waaw ndeysaan ñu yónnee ko ñu bindal ma ko ci message ñu jox ma ko moo tax gis nga am yoo xam ne lu coow li bare bare rek ku yebu tey tuuti waaw wallaay ndeysaan waaw ba tax na kon nag moom waxtaan sax newu fi li fi am rekk mooy yenn ci point yi kenn ku ci ne nga jël ko te ñii ànd ak yéen ci wàllu daara bu daayira bi danañu reprendre point yooyu gën ko waxtaan ak yéen ci liy ñëw mu mel ni colonie bi ñu ngi koy commencé waat ci le sept bii di ñëw mu laaj nag ñëpp jël seeni disposition pour que lu ca war rek ñu ànd def ko ndax jihaat ay façon la léegi jihaat du jël jaasi di xeex amatul waaye jihaadu tarbiya moo xew waaw ah. jihaadu tarbiya moo xew moo taxoon kaatim bii daaw ca colonie bu jëkk ba mu ni ma wat na ci yàlla ni lii li ci ne pour nit ñi ku fi ñëwul doo ko xam waaw ah. mu ni moo tax rekk lu mel ni jar na jamono bu ne ñu di ko amal waaye fekk boobu ñu nit ndigal lañ ci am bu ko defee kon nag ñu jëm ci incha allahu colonie bi topp ko axe par axe comme jamono dafa xat ndax bële passé dañ doon def bu ñu defee axe bi bu semaine boobu jeexee ñu jël beneen semaine def ko beneen axe waaye temps bi dafa xaw xat te université du ramadan mu ngi ñëw moo tax bi yoon ñu xalaat rek di boole par ñaari axe waaw par ñaari groupe bu groupe bi demee ci aksi bii ñii dem ci axe bële ñu di ko def ba yëpp mët waaw fii ba Casamance waaw ñu def yépp waaw bu ñu paree nag def benn conférence de clôture waaw waaw xam ne mën naa am bu fekkee ma jot ma defal leen ko waaye mën naa am it bu ma jot ma ñaanal leen ka ruq ba mu defal leen ko waaw waaw نعم waaw bi yoon daal danañ ko saraxu benn mu def conférence de clôture bi ba mu def laylatul qadr bi waaw waaw waaw waaw waaw waxin la waaw xam yaakaar na xanaa bu ñëwee lay jeex taa na kon nag tubarkal la moo tax gis ngay yéene kenn xamul lan la nan xadda ngay xuloog taw da koy seetlu yëgu ko yéen ñi yore comité bi sax yëgu leen ko waaw ci bisu gàmmo gi maanaam ñetti ñeenti fan avant gàmmo gi maag Babacar Thiaw rek waaw jóge na fi ba dem ba mbuur dellu si ba ni ma tee ngaa bàyyi ma dem gànnaar ndax boobu dafa am lu ñu soxla te fi ko daan am ci senegal bi mu fi yónnee ñu ni ma amatul fii Dakar léegi nañu dem ci côté Mbour peut-être ci Saly Portudal wala bu fi amul nag Nouakchott rek lay mën a am waaw ba Babacar Thiaw ni ma bu ñu demee mbuur te amul teg ma bàyyi rek ma dem Nouakchott ma ni ko comme xat na te gàmmu gi ñëw na ba noppi ma nañu xaar ba beneen pour wax leen nit dana fonk kilifaam bëgg jox kilifaam la mu moom ba lu mu def xeeb ko waaw ba lu mu def xeeb ko waaye la ma xalaatoon nag du ma ko wax comme amagul damay bàyyi ba beneen yoon waaw incha allah waaw waaw ma tax na kon nag bu amoon rek wàcci waa woon gën a ñi waaw waaw waaw ma tax na kon nag yem yoon yemul ci benn waaw mu ngay ñëw incha allah waaw yal nañu yàlla may dund te yàlla téye pas-pas yi te yàlla mottali tarbiya bi ci sunu turu kilifa waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah دانيو وحني الشريف زين العابدين حيدرة أتوكني مو يوني نوتبي مو وحني بسم الله الرحمن الرحيم تحية عطرة ملؤها الاحترام للعلامه والاكاديمي والمفكر السيد مصطفى السي آه. ألا أيها البحر الخضم غوث البرايا والثقاف المقوم أراك حويت العلم والمجد والتقى وأسست ركن الدين وهو مهدم فلا زلتم أنتم أئمة قطرنا وأنتم لدى فعل المكارم أنتم وأنتم لهذا القطر زين وزينة ومصباح لهيل الجهل فيه ومعلم آه. مبنكم مام تدو الشريف زين العابدين حيدرة مملي تبارك اللي مواخير دنكو يدلو بروم آه. ndax góor gi moo ñu wax ni nag sunu baay bi ñu leen tudd di sëriñ Muxtaar Xadi Géy di kilifa ca njar te yaakaar naa bu ñu leen waxee góor gi Abdou Bousso Dia daa ngeen war a mën a xam lu mu doon ci ñoon fa tabaarakallahu ci njàlbeen gi mel na ni bi ma tuddoo cheikh rekk tudd naa waa cité bi yépp waaye ngeen di ma may ma nuyuwaat sunu mbokk Daawuda Mbay te di ko yóbbante nuyoo itam ci sama turandoo wa tabaarakallahu di ko sant ci taxawaayaat ci yëg gi ko defee ñu jox góor gi nee na dafa bëggoon sànni ñaari baat bu ko sànnee ba noppi rek ah ñu ñaanalante xëy na bu dee da ngeen am lu ngeen bëgg a ngeen mottali ko waaye rek dañ doon yegg si pour ñaari baat ñetti baat kenn ku ne mën ko yóbbaale def ci analyse tëral ci taxawaayam tëral ci it tarbiyaam wa xam naa babakar ciow sax togn na Cheikh ni ndeysan dafa xawa lewat waye tabarkal la nit dana dem ba ciofelam upp ko dole waaw ay fekk sax du lewat ciofel gi upp waaw lu rar la mu wax ak yow ba mu jeex te jooyul waaw ndax xam lu bare ak it sant yàlla ci yu bare waaw ah. ah fa tabarakallahu kon ñu jox góor gi mu sànni ay kàddu yu néew bu ñu paree rek yóbbante Baye Omar ñaari baat ci seen tur mu dem jox ko góor gi wallaay amin kan billaay kan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan amin kan billaay ndeysaan amin kan amin kan amin kan amin kan ndeysaan soxna maram kan ndey maram kan bokk bu xaaj cheikh kan ndeysaan ku nekk ak yéenam ndeysaan tax na tubarkalla yal na yàlla mottali ñu jox góor gi mu sànni ñaari baat asalaamaaleykum ah. Cheikh Moustapha Sy yàlla nga fi yàgg ndax yow gëndale nga lislaam yar bii ma gis fii waa àjjana rek ñoo ko yor te billaahi wallahi taal nit a àjjana ngeen jàngu waaye nag dégg naa fekk na seetaan na gis naa man de fu ma jullee nu ngi lay ñaanal mbooloo mi yokk te kenn mënu ci dara billaahi ndax ba nga yebale sa mbooloo mii ci samay jàng ba léegi ak yokk rekk ma am ci man ak dëkk ba ak réew ma sa mbooloo bu ñëwee ci sunu bu liggéey ñoo raw ab tarbiya du tox cigarette du ñu fa du dem ci néeg la nga leen sant ci liggéey ca la ñu nekk boolewuñu kaa fa bëgg ñu alali kenn yi ñu mag pay fayiku ñu ma liggéeyal Seex Alaaji Maalik Si rekk leen tax a jóg yal na sa mbooloo mi yokkute ànd ak ab yar te dama mel leen di wax ni nit li ngeen xam ci nit ak la lay nit bokul ñoom ñi duñu nit ko ci xol xeyla ne na xala ne nga di nga sanku may ak yalla bokul ak jang mbirum yalla bokul ak jang bu dew askan di téméri nit ñent la ci top wala juróom yeen ñak ca ngeen bokk yeen ñi kenn mënu ci dara yalla sa mbolo yokku yal na sa mbooloo yokk sëriñ bi nun fu nu jullee ñaanal la amunu solo fu nu jàngee kaamir ñaanal siman bu ne ajjuma ak altine bu dikk dina nu wàcc ay kaamir ñaanal la sa mbooloo yokk ndax yow gënde la nga diina ji gënde la nga lislaam xamoo teejaan xamoo laayeen xamulu murit xamulab cene ba xamoo kan matériel bi fa lislaam soxlaa yebal nga say waa ñu dem fa def ko na mu ware ci laaju ñu kenn dara xanaa lislaam ma la tax a jóg gëndale nga ko yàlla na nga fi yàgg yàgg sa kilifa gu baax di sañ seex yàlla fi yàgg lu war ci moom dina am kenn mënu ko fil lu war a am dina am kenn mënu ko fil ñoom nag dañu xam tuuti jóg wax benn taxañ fukk baa ñu taxañ téeméer baa nëbb junni na na góor góorgóorlu te lii ngeen am jafe na Cheikh Moustapha Sy yàlla nga fi yàgg yàlla na nga fi yàgg ku ne yàlla na nga fi yàgg yàlla nga fi yàgg ànd ak moom nu bokk fi yàgg nun ñëpp wasalaam wallaay ndeysaan barakallahu ah moom day moom mbaax mbaax rek la tudd waaw ah, suñu cheikh daan na dégg mu wax ni ku amul mbaax doo mën a joxe mbaax doo mën it wax mbaax waaw moo ne kon nag tubarkal la ku wax mbaax rek fekk na di yàlla jox na la mbaax ba noppi kon nag yàlla nañ ko jariñoo ñu ngay sant ñëpp di sant itam tabarkal la sunu gan ñi ñoom ñi jógee Mauritanie ñëw ci daje bi tabarakallahu lu ñu xewle rek ñu bokk ko ak ñun nag ci turu mbooloo mi ñu ngi leen di sant ñoom al wafdal Mauritanie ñu ngi leen di sant تحية مباركة من عند الله منا إليكم آه. نتشرف بحضوركم هذا ونوقركم ونبجلكم تبجيل الأخ لأخيه ونقول لكم بقلوب ملؤها ملؤها الأخوة وملؤها الإيمان بالله نقول لكم شكرا ألف مرة إن شاء الله ومعنا وهو الى الدرب يقول ان شاء الله ان شاء الله سنعطيكم الكلمه بعد ان شاء الله دانا كون نا نيوميت نين دا نيو بغ نيو جوخ ساني كادو كن مانو سي دارا نيو جوخ لين بات ولا نياري ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مني مونغي نيو مبولومي كي ترو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا نحييكم جميعا نيو لين دي نيب بأسمائكم وألقابكم كي سين تورك سين سانت كما نحمد الله دي سانت يالا يتم الذي سخر لنا يلا من يتقتل اللقاء بكم دجيجين في هذا الوقت في وقت بي أمام الشيخكم تكنا مسين سرين المصطفى سرين مصطفى سمي شدنا من يتدس سنو مام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتي صلى الله عليه وسلم وخليفة أخينا ووتسلم بك وصديقنا دي سنو خريب الشيخ أحمد تجانسي الشيخ أحمد تيجانيسي الذي كان من خبني نيكنا قد أمنا مونو مي مرارا جيتنو أيون أمام المسترشدين كنمو المسترشدين يعني دائرة المسترشدين معنى دائرة المسترشدين ونحب الرشاد كما يحب المسترشدون مني صب دنكو ني صب مسترشدوني ونسأل الله لكم الرشاد ñuy ñaan yàlla yal na leen may njub te ngeen sax ci والتوفيق ak tawfiq والتمسك بالسنة ak jàpp ci sunna عند فساد الأمة ci ni ko xeetu yonent bi war a jàppee في هذا الزمن ci jamono bii الذي كان هو آخر الزمان nga xam ni mooy mujjug jamono الذي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر الذي بعث فيه رسول الله قال بعثت في آخر الزمان بيغا خامني ci لن يوني yonent بي صلى الله عليه وسلم من ñu يوني yoni موجوك جامونو نقول لكم أن هنا طوائف كثيرة لين وني أي طريقة يبرنج في أي يون يبرنج في ولكن نحمد الله واي ني سنت يالا الذي جعلنا ميغا خامني مونو ديف في الطائفة التجانية ني بوكو ci طريقه Cheikh احمد التجاني التي جعلها الله بيغا خامني يالا ديف نكو علامات في القران من نيك ماندارغا تي القران من علامات الاسلام من نيك ماندارغا تي الاسلام حيث قال فموي وخنان انما يعمر مساجد الله من امن بالله نين ني دوندال جاكاي سونو بروم يي نوي ني گم يالا وفي افريقيا والمغرب نين تي افريك اك المغرب اك سوجنت أك المغرب العربي جميعا ما مرب يب نسبة تسعين وتسعين بالمئة نين بنيو سيتي كتربين ديزنو بورسان من بيوت الله تبنت سنو برومي عمرها التجاني ولله الحمد نين ني دندل جاكي نيوي تجاني الحمد لله رب العالمين نين نيوكي سنتي الله وهذا أكبر علامات من علامات الإسلام loolu nga xam ni yàlla def na ko muy ay mandarga ci mandarga lislaam والتمسك بالدين te jàpp itam ci diine وقد saqara الله lakum هذه الأسرة mu ni yàlla leen tàggatal famille bi allati سخرها الله lakum kama سخر bi nga xam ni yàlla ko tàggat ni mu tàggatee رسول الله صلى الله عليه وسلم يونت بي صلى الله عليه وسلم تي بير خيتام لحليمة السعدية نيمو كوت نيمو تاغاتي حليمه السعديه حيث يقول البصيري في محمد البصري دي وخنان وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء bu yàlla tàggatalee nit ba mu texe nit ku ko toppati texe nga comme moom loo lam takunu suada nee na bu ngeen nekkul woon ñu texe lama saxarakum allahu li hadihi al usrati janiya ni kon yàlla du leen tàggatal mukk famille bu tedd bi ñu nekk ci seen kanam nasalu allaha lakum ñuy ñaan yàlla pour yéen wa li ashaaxikum ngir seen sëriñ it di ko ñaanal yàlla. wali wasaa'ilikum jamii'an. di ñaanal seen responsable yépp. al wuquufa. ngeen taxaw. ma cheikh مع الشيخ أحمد تجاني الشريف تخو أك شيخ أحمد تجاني الشريف في موقف واحد تبن تخواي في ظل العرش ci suufu arsh يوم لا ظل الا ظله بس بيغا خاميني ني كين كبار امو دغول كبارو عرش ونسال الله للشيخ المصطفى سي ني نيانال يالا الشيخ مصطفى سي ان يجعله الله مثل اخيه عندنا يالا ديفكو مو نيك سونو مبوك الشيخ احمد تيجان سي نيك مبوكو شيخ احمد تيجان سي الله الله كرر نصره الله يلنا كو يلا دوليل دغرل كو وحفظه في المكان الذي يكون فيه دائما يلا سخل كو تي بلاص بيغا خامني ني تي لا نيك مو تي دك ونستودعكم الله ñu di leen tàggu nag ونسأل الله لكم التوفيق دي لين دينك يلا دي لين ñaanal يالا توفيق والرشاد انجب كما نحضكم على الطريقه كما نحضكم على الطريقة نين دي خير تلتيون وين سوبو يتم وكما نحضكم على اتباع هذه الأسرة دي لين خير تلتين توب فمي بي التي من مات متمسكا بها فمي بي خمني كوكو توب بدي فقد مات متمسكا بطريقة الشيخ أحمد تجاني نينا نغا خمني ني فاتو نغا توب طريقة الشيخ أحمد تجاني التي قال الشيخ أحمد تجاني أنها من مات على التمسك بها بيغا خبدي شيخ واخنا ني كودي شي طريقام فلا يضره شيئا من الالتفات الى اليمين واليسار نينا نغا خمني سا بوروم دينا لا جوخ لو بغ مولاي جوغي نديجور اك تامون نسال الله لكم التوفيق والرشاد نيلن دي نيانال يالا التوفيق انجو السلام عليكم ورحمه الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لقد سمعنا بقلوب واعية كلماتكم وإذا كانت كلمة الشكر المقدمة الأولى لاعتراف الجميل فنحن نعترف بهذا الموقف الحر الذي تقفونه وأنتم أمامنا وأنتم تشهدون مشاركتكم معنا في هذه الخدمة الإسلامية الكبرى وباسم الجماعة وباسم الإخوان كلهم نشكركم ألف شكر ونتمنى لكم سفرا ممتعا

ak njabot yu bëgg a def examen bëggoon ñu defal leen ay ñaan ko defee ñu def ko rek yewi nit ñi incha allah jërë ngeen jëf بسم الله الرحمن الرحيم سرين بي لم نتعود الكلمة في مثل هذه المناسبات ولكننا سنأخذها اليوم في هذا اليوم وفي عصر هذا اليوم سرين بي دقل لقد رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا ورضينا بكم قائدا ومرشدا ومربيا وهاديا mbokk yi ngeen baal ñu <clears throat> dañu jóg taxaw tey di wax ci kanamu sang bu tedd bi yéen ñépp ngeen teg ñu bët ndax ci seen tur lañuy waxe ci ndigalu comité permanent bi miinu ñu ko di def waaye tàkkusaanu tey bii bëgguñu sorxo sorxo moo tax bëgguñu kenn jóge fele wax kenn jóge fele wax te kenn ku nekk am na luy nux nuxi ci sa xol xam nañu itam contexte bi sëriñ bi waxee bil ishaarati yafhamul labib xëy na li ci des colonie yi dina ko mottali waaye ñu xamal àdduna bi nii لأننا نعرف أن العالم يتابع حديثه عصر هذا اليوم لا نقول أهل الياجين ولا أهل السنغال ولا أهل القارة الإفريقية السوداء ولكن العالم كله يتابع حديثه هذا اليوم ورنت ونيوني لموند توتانتي مغلي سيبر في منكني دي lay suivre fi mu nekk ni di déglu sa waxtaan bëgg a waaye xam nga naka ngay jëflanteeg sa njaboot man nga wax ak sa njaboot te du tax adduna bi lay tëru xam foo jëm zalika fadlullah loolu xakim piire ko man ñu bëgg a wax àdduna boobu di déglu defe ni ay xàmbaar mën na dox sa diggante ak say njaboot ñu xamal leen ni nangu nañu yàlla ni mooy suñu boroom ñi fi toog ñépp kenn werantewul loolu nangu nañu ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi ñu yàlla sédde yónni ko ci ñun ñi fi toog ñépp kenn werantewul loolu nangu nañu ni lislaam mooy diine ji ñu yàlla baaxe ñu nekk ci biir ñi fi toog ñépp kenn werantewul loolu ku ñu nangul ñett yooyu nañu nangul itam nangu gi ñu nangu ni yaay sunu sëriñ yaay suñu responsable moral ba ñu koy wax booba responsable moral yi bareegul responsable morale yi yi nag bari na nañu xam ni su bii dàqoo rek ñett yi jiitu yépp dàqu bés bu ñu la weddiloo nañu nangu ñu weddi lislaam weddi yonent bi weddi yàlla lii góor gi seede léegi njabootu boroom borom bi ni nit niti na ngeen ndax yar bi mu fi gis ak dal gi mu fi gis loolu wa mislukum ulu waaye yéen a ngi représenté seen téeméeri junniy moroom قديما كانوا يحصون أعضاء الدائرة بنصف مليون وكان ذلك قبل عشر سنوات أو يزيد بجكبة دجنان 500 ميل personnes buñ ñu ko masaana soxna satani nan ma ci yokk bokk cinq cent mille bokk un léegi daayira bi macha allah tabaarakallah kenn mënatu koo lim ñi ngeen teg bët ci tànt bi ñi ngeen tegul bët ci tànt bi ñoo leen ëpp ixwaan fal yaarif kullun minkum na kenn ku nekk xam ci yéen ni sa digganteeg sa moroom am na téeméeru moustachid yu tey gisu leen leen waxuma benn mais kenn ku nekk na ko wóor ni sa diggante ki nga sësal mbagg am na téeméeri mustarshid aw mustarshida yu fi toog te gisu leen leen te ñooñu yenn saa yi ñu dem bay révolté ndax xeeb suñu yittee waaw minal mustarshidin xalqun min jinsin aaxar démb laa leen mujj seeti ci na Serigne di ay mustarchid te bokk ñoog ñun démb la leen mujj seeti ca doj wa moo tax ñor ka yor ña nekk wallaay nee na Baye Omar nee na ka ña nekk ca dex ga ca ndar itam démb la mujj ca moom moo tax moo tax nañu leen nangul seenug ñàkk jot Serigne Mustapha nañu ko nangul ak ñàkk jotam ndax ni ñuy soxlaay tournée noonu la ñeneen ñi di soxlaa ay turné ni ñuy soxlaa ziyaar noonu la ñeneen ñi di soxlaa ziyaar ni ñuy soxlaa waxtaan noonu la ñeneen ñi di soxlaa waxtaan comme que nag ñun mënuñoo collaborer ak ñooña nañu nangu mu féete foofa rek lu ko jotam may mu ñëw mosal ñu ci rek ndax ñun mbokki responsable yi nga xamni dinañ faral di tatane ay orientation xam nañu ni jamono yi yeb fasu ci won yene wax ak al mustarshidun min jinsil bashar fasu ci won yene wax ak mustarshidin yi nga xamni ay être humain lañu ndax amna na yeneen cas yeneen situation yu mu am ittey régler ko nañ ko nangul ñàkk jotam waaye nañu fexe rek ba ñun ñi fi teew ñépp ak ñi fi nekkul ba ca bitim réew ñépp a ngi xerewul bitim réew fépp nag ñépp a ngi xerewlu jataay bile nañu nangu bismillah am na ci yóbbante bu mhm. ko wax mhm. ki mhm. mu ne am na taalibe góor gi boo xam ni ci njaboot yi nga tudd te ñu féete Inde jóge nañu foofu ñu ngi ñëw di seet ku leen war a recevoir. wallaay. bi ñu koy na am na ci yóbbante boo xam ni ka ko ko doon wax bi mu koy wax Mansour ñoo a ngi toog te lu amul seede baaxul mu ne ko am na ci njaboot ci góor gi ña nekk ca boori Inde ña ngay fabu di ñëw ñu ngi seet bu nu ñëwee nañ leen leen di recevoir sëriñ bi. bu for yombee nag sëgg jafe góor gi nee na léegi ñii duñu nit duñu nit bu leen ci abima yi nax sa yati yowm wa maa asafi kullil asifin bada hadha al yowm bés a ngi ñëw malheureusement bés boobu ëgsi na ba pare mooy nit ñi dootuñu am bànneexu di leen teg bët fu ñu toll ndax seen jot dootu leen ko may kon li ñu mën a may chance mooy appareil yi ñu def suñu xol muy suñu conscience nañuy fexe ba suñu conscience di tranquille fu ñu toll ci ni ay njaboot lañu yàlla nañu ko yàlla defal sëriñ bi ñi fi nekk ñi matuñu azakay ñi fi nekkul te di leen déglu te di leen yaakaar tey taatan seen leer ñi fi nekk ñépp a bëgg a yeeslu duñu ko jagleel fi atan duuna uxra ñi fi nekk ñépp a bëgg a yeeslu gàtt xel nag weesuwul bu ñu naan ñi bëgg a yeeslu yow nga jàpp ni bokkuloo ci ñi fi nekk ñépp waxuma la bëgg a yeeslu waaye ñépp war a yeeslu ñu nekk ci àll bi te fekkewuñu ko sax sëriñ bi seen mbokki responsable ak yéen ñu ngi leen di yóbbaale nga yeesal ñépp nu jaddidul ahda wal walaa baynana wa bayna samahatikum yal nañu ko yàlla defal noonu ñu topp ko ba ca kanamu suñu borom wax nga ñu ni doo def bilan mukk ci kaw suuf ndax sa yitte mooy bés bu la yàlla recevoir Moustapha ñëw nga nga ne ko ñëw naa njaboot gaa ngi nii kenn bañ a manqué moo tax nga sonn ci photo de famille boobu li ñuy ñaan nag mooy njaboot yi topp sa gannaaw yépp te yéene la yiw nga téye leen seen pas-pas ba ëllëg suñu kanam borom nga ne ñu yàllaa ngi ni nga ñu wommate woon ba ci kanamu Serigne Cheikh Atam baax da xëy bu batin tawi la gannaaw ay at yu yàgg ku nekk naan Serigne Cheikh dootul génn nga jaar fi nga jaar ba Serigne Cheikh toog njaboot yépp toog nga leen Serigne baa ngi nii ëllëg nga wommat ñu ba ci sunu kanamu yàlla ak màggaayam ak leeraayam ak kartanam ak mbaaxam ak pouvoir yi ko yi mu jox boppam yépp nga ne ñu voilà le bon Dieu dañoo waxaale ñépp nag waxaale ñépp nag xam nañu li seen xol sax mënuñu ko génne waaye bu keneen jéemee rek du sotti ñun daal topp nañu sa gannaaw ba keroog xataa nuaayina rabbana insha allah xubbul ah. muaayana nag ak xubbul xabar du benn yaa ñu ko jàngal de xubbul muaayana ak xubbul xabar du benn waaw yal na yàlla mottali sa yéene boobu waaw sa yéene boobu nga am ci wommat njaboot yépp ba ñu teg bët seen boroom yal na ko yàlla mottali incha allah yàlla bu ci benn ndog jaar incha allah wa yowma zalik li góor gi wax ci radiallahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabbahu radina ankum li nuy ñaan mooy allah laala allah yuriikum fiina maa taqirru bihi ayunukum yal na yàlla seral sa xool ci sa njaboot yépp incha allah njaboot bu la tooñ bu la man di tooñ te bari na njaboot yu lay tooñ wa ana awaluhum maa ci jiitu ci tooñ gi waaye njaboot yi lay tooñ yépp dañoo doyee di dañoo doyee di waaye kenn amul fu mu war a teg tànkam ba war laa tooñ amul amul doye di a fi nekk doye di rek doye di googu nag ah, xam nañu ni sax xajoo nga ko waaye rekk nga jéggal ñu ko ñun ñépp bokk na ci liy dalal suñu xel xam nañu doo ëmbal benn njaboot njëppite sabaqat rahmati ghadabi yaa ñu ko jàngal bari na yërmande bu jur mer bari na yërmande bu jur mer dina jëfandiku nga def ni dafa mere diw fekk na yërmandeem yërmandeem bi mu amee ci njaboot boobu moo tax liy feeñ defe ni mer la nuru ni mer la mais yërmande moo ko lal yal nañu la yàlla fayal جزاكم الله عنا خيرا لا دعاء فوق ذلك جزاكم الله عن الأمة خيرا جزاكم الله عن الإسلام خيرا جزاكم الله عن العالم خيرا أدنى نيب نغي جيرين يالنا لي يالا في سيكون تشونا سي ادنا بي نين بال ني اق نك خمنا ني كين كو نيك سي مانون نا واخ لو اوب سولو لولو وايي تامبلي كو ريك تيس كو ريك mu yobale yi ci des yep ak yene yi ci des yep ngeen bal ñu ak serim ci kàddu yi ñu yekati wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ah góor gi day ndeysaan sa yit cheikh ma waxon ni ku se ku se deun fess nga ni oxo waaw wallaay ndeysaan ku se deun fess nga ni oxo nafsatul masdur ah wax bu ko borom génnewul sax mu gañ ko mu mel ni ñi fi toog ñëpp li mu wax kenn ku ne looloo nekk ci sa biir li mu wax ni ku ne buñ la joxoon rajo bi mën nga wax sax lu ëpp loolu waaw nag yàlla ñu ko jariñoo yàlla ñu lii suñu sunu tarbiya ci sunu barke kilifa te kenn bañ a manqué na baat bi mu wax rek moo ci ne waaw man ko wax bërki démb benn njaboot ndeysaan bu ñëw fekk beneen njaboot bu jaaxle mu am lu mu dégg ñu ni dañ ko wax ci moom ci man mu mu metti ko nag mu yóbbante beneen njaboot pour mu ñëw leeralal ma ma ne ko bu nga demee ni ko am na koo xam ni feek mu ngay wax rek xamal ni merul am na koo xam ne mu muy wax ak yow xamal ni merul waaw am na koo xam ne bu la jëppee dootul wax ak yow ci booba bëgg laa jaay tax na loolu ci suñu kilifa lañ ko jànge waaw tax na ko nag tubarkal la yàlla ñu ko jariñoo yàlla ñu yàlla mottali ci biir rek ci biti ñu continuer liggéey bi rek waa ni ñu ko waxe euh, te it rek am ci conscience bi am ci it lucidité bi mu laaj waaw am ci disponibilité bi mu laaj waaw ko yàlla mottalil fa tabarakallahu ah ñuy yóbbante bayomar ci ngoonu takkusaan gi ni ñu ko waxee am na du yàgg sax ñu gisee maag moom waaw ndax dafa am lu ñu sëriñ Babacar boole ñu war ca wax waaw ah, daan na tabarkal la junju na leen ko ci gàmmu gi waaw ah, man maa ko ñaanoon ni ko ñu may ma tuuti waaw ah, dafa am lu may yeggale tuuti bu ko defee ñu soog a jëm ci liggéey waaw tabaarakallahu bu ko defee rek kon ah ñu sant yàlla bu baax a baax waaw ñu gën a jàpp li ñu am rek te gën a bàyyante xel waaw kenn koo xam ni waaw isan isan isan isan isan isan isan isan ndeysaan isan ah bu ko defee kon nag yàlla sunu borom la mu yor jeexul waaw la mu yor jeexul waaw moo defee ñu bàyyi ko xel noonu rek ah la mu leen wax ci gàmmu gi ni man sama sëtu sëriñ yi damay raay rek ah, wallaay wax na dëgg ah waaw moom mi sañ lu nekk bu ne damay raay rek keneen ku bëgg leneen ba dina sotti ah du sotti di ah tax na kon nag ku yóbbu rek bàyyi kook raayam boobu rek moo ñu jig waaw tax na tabarkal la kon nag ah waxtaan waa ngeen jógee rek ñi ngeen ko seqal dinañ leen ko gën a leeralal gën leen ko yaatalal ngeen topp ko benn par benn waaw bu ko defee ñu ngay sant ñi taxawu njaboot ji ci wàllu xew-xew bi commencé ko ci ak su Dakar bi nga xam ni moom la Babacar yore tabaarakallahu ak bokk superviseur yi mu ko bokkal yépp ñu jàppale leen ci waaye itam yépp dellu si ci cité Aliya Jéen am loo xam ni ku ca santul yàlla doon nit waaw ndax fii bi ma fi ñëweek léegi fukki at la waaw sama ñëw fii it Cheikh Ahmed Tijani bii di turandoo góor gi moo ko sabab waaw bi ñuy tabax cité bi moo ma gis ni ma ñu ngi tabax cité bu bees fii man am naa fi sax kër bu ma sañoon nga toppatoo am fi kër ma ni ko amul problème fexeel ba gis ki yore affaire projet bi nga wax ma kan la mu ma ragal naa nag du jafe daa doomu aram jéen la ma ni ko kon nag demal nga seeti ko moom ci boppam moo dem seeti ko waaye ba mu koy seeti sax dafa faf dem jaari ci aram jéen aram woo doom ji ba mu ñëw ni ko li wolof wax nii bu jinnee soxla daqaar ku yéeg daanu waaw ah. mu ko kon nag doomu Serigne Cheikh yi bu soxlaa ci projet bu doomu aram jéen di def wallaay bu soxla yépp na ko jël waaw ah. moom itam mu def ca taxawaay ba ñu jël kër gi wa tabarakallahu ñoom ñii ñu di ñu fi wettali wettali dëkkaale waaye dañu fi wettali it wettali famille bu ngeen gisee léeg ma mën génn bàyyi sama famille dem parce que xam naa ni du ñu am problème ndax ñi ma dëkkal ak ñi ma bokkal kër gi ci walu pas pas-pas bu ma fi newul it maa ngi fi waaw wa tabarakallahu ñoom ñëpp góor ak jigéen waaye tabarkalla cheikh bii soxnaam bile di ndey kumba wa tabarakallahu taxawaayam kenn xamul lan la mu ànd ko ak ñu baax ñi mu ko àndal sama yompaañu bopp bii di madame dem wa tabarakallahu ak ñi ñu ko bokkal ñëpp ci biir cité bi eh, kenn ku nekk ak taxawaayu boppam ci gàmmu gi ñoom ñëpp dañoo ànd def une euh, délégation ndeysaan waaye ñu ñëwee ba ci biir néeg ba dama leen mujjee sax yërëm ndax dañu mujj amee comportement bu nga xam ni dafa mujj sax ma ne waaw moom lu leen dal tey ñu ne tey dañoo aalu ma ne ko ah waaw day tey da ngeen a aalu bokk waaw walaay ndeysaan ku ci nekk ak façon bu ko defee tabarkal la loolu ëpp naa xeeb waaw mu mel ni kon nag ñu ngi leen di sant ndax lii tuutiwul nag yal leen yàlla may kàttan at mu jot ñu di ko def na mu gën a rafete yàlla may ñëpp wér ñoom ñi fi dëkk ñi ñëw di ko bokk ak ñoom ak fu ci nit mën jóge yal yàlla def wér yàlla def gudd fan yàlla def sutura yàlla def tawfiq ñëpp di ko man di bokk ci sunu turu kilifa ak ci barkeem ak leeram mo fi yebal bayo mar bayo marit it jotal na yobantem wa ndax lu neex la wa ku day ni se yit cheikh ak ko xamni mu toll neex na waaw Baye Omar ni ma nuyu na la bu bax de nuyu na la lu bare bare bare bare doyna na nag nga nit nuyu nañ ko lu bare bare bare bare bare ndeysaan ñu ngi ko ziyaara te ñu ngi ko masawu wa tabaarakallahu nekk mu nga ca la mu ñu waxoon ñu nit ñu nga ca lañu ko waxoon wa tabaarakallahu yal na yàlla mottali waaw wallaay wallaay ndeysaan waaw bu ko defee tabarkalla kon nag mu ngi guddi ñu ngi gërëm waa organisation di gërëm waa technique di gërëm waa sécurité di gërëm ñëpp kenn ku ne ci façon ba ngay jàppe ci liggéey bi bokki dëkkaale yi nga xam ne ñoo dëkk ci cité yi wër Aliou Diène góor ak jigéen ku nekk ak sa taxawaayu bopp bu ko defee ci cadre dayire bi ah ñu jaarale ko ci sëriñ comme moom mooy seen doyen ci niveau comité bi ñi mu bokkal comité bi ak responsable yi mu ko bokkal président wu daayira yaag présidente yi fii ba keroog ngay dem Europe wala aksu Afrique wala nga dem ba euh, sax sa Asie ñëpp ñu ngi leen di sant ku ne ci sa taxawaayu bopp depuis ca gàmmu gaa ak léegi bu ko defee tabarkal la ah ngoon na te xëy na am na ci ñoo xam ne fa ñuy jëm dafa sori te bu doon benn waxtu sax doy na ndax barke leer bi rek moo ca am solo kon nag ñu ngi sant yu ñépp ñu ngi gërëm ñépp gannaaw bi ñu yóbbante bayomar li jëm ci kilifa gi sunu bàyyu daayira yi ñu nga leen di yokk sant di leen yokk ñaanal góor gi nag Mansour mu ngi fàttali gamu yeen xam naa bu ñu jógee ñu seet rek ndax li malik mbay waxit am na am na bu ñu sañoon bëccëg bu ne bu ngeen ñu soxla ñu ñëw defal leen la ngeen bëgg ngir yàlla ak pas-pas bi ñu bokk waaw waaye léeg jamono xat te it léeg mission toll fu nga xam ne léeg dafay laaj nga éclipsé wu tuuti ndax liggéey ba la ca yaaju dafay bare waaw waaye bu jamono yaatu tuuti rek incha allahu danañu ñëw yeen danañu dem njoof yor sëriñ Ablaye it mu ngi fàttali gàmmoom xëy na nag ñu seet ko incha allah ñu may ma rek ma gisee góor gu tedd gi ba yi ñu waxtaane woon ñu seet nu ñu ci tërale ba noppi ñu pare rek ñu seet nag nu ñu leen di wutale programme ñu ñëw yeen ñëw jof yoro allah ñu ngi ñaan ñépp rek ñu bàyyente xel te ngeen ñaanalante da kenn ku ne sa nekk gu dal mu nga aju ci nekk gu dalu ka ca des da kuy ñaan rek na nga ñaan pour ñëpp ngeen bokk jëriñoo ko incha allah yàlla ko yàlla mottali eh kon nag xam naa ñu ñaan ci document yi ñaan ci bindukaay yi bu ñu paree rek ñu boole ñaanu yeesu lu yeeg ñaanu faju aajo yeeg yi ci des yëpp ci barke ñi ñu yaakaar incha allah kenn ku ne na jàng بسملة أنا بسم الله الرحمن الرحيم جنگ بن أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم جنگ بن صلاة الفاتح نوية نجن يب يا سنو تربية يا سنو ورد يا سنو بس بس جاري لكو سنو بركة كليفة yal nañ ko yàlla nangul nañ ko bokk ñu def ko incha allah yàlla nangul yàlla barkeel yépp ne ku ne jàng fatiha fatiha ngeen ngeen tey ngeen tey ba ñu ñaan ba noppi ah ëpp naa xeeb lay ndeysaan كوني جانغ فاتحة جانغ جروم نيتي لي إلا في قريش جانغ بن آية الكرسي جانغ الإخلاص فلقي أتناس أك نيتي صلاة الفاتحة يدفكو هدية تي سنو كليفة مجوحك أي كليفة نيان li ñu semb yépp ak li ñu yéene yépp ak suñu bëgg yegg yépp ci barke ma ak barke ñi mu yaakaar yal nañu ci yàlla may ñu yegg ca ak sago te résultat bi ëpp sunu njort te ñépp fekke yal na ko yàlla mottali bismillah baarakallahu yenn na yàlla nangu yëpp ngeen toog tey leen tuuti rek ñu ngi ñu ngi sant sunu mbokk yi yore sécurité bi mu ndànk may ko mu yegg yeggale ko eh, sunu mbokk policier yi fi ñëw te jàppale si njaboot gi ci wàllu mbooloo mi ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay ñu nga ne lee taxaw eh, di leen jàppale ci circulation beeg yooyu pour oto yi bañ a sonal njaboot yi ñu ngi leen di sant di ko eh, seedeel itam ñi nga xam ne ñoo leen fi yebal tabarkal la ñu ngay sant it képp ku nga de près ou de loin participer nga ci façon bi nga mën participer pour réussir de am ci journée culturelle yi comme nico babakar Babacar Thiaw waxe kon nag yal nañ ko teewee nege ni te ñëpp fekke te dewen gi bu ñëwé dàq fouf yi passé te ñëpp fekke te kenn ku ne yalla may la njaboot bu def lu ëpp la nga def te yàlla defal len barke ak leer bu ken amul kon nak jazakumullahu anna xayran te yàlla saxal len ci bir tarbiya bi zahiran wa batinan ñu baña raté dara baña échapper dara ñun ñep yàlla may ñu ñu japp ndoko ba yegg inshallah ci barke sayyid Cheikh Ahmed Tijani yal ko yàlla mottali ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di jaale itam doonte sax yónnee woon nañu ba ñu def lii farata waaye rekk ñu gën leen a jaalewaat sunu mbokk Ibrahima Samb bi sunu responsable ci Afrique du Sud jarbaat la ci Baye Omar Samb bii waaye ñu di la seedeel ni ku amul moroom la wa tabarakallahu ëpp na yal na ko yàlla sàmm te yàlla mottali yéeneem ñu ngi koy jaale di jaale bokk yépp di jaale it ñi nga xam ni yépp la sunu mbokk bi nekk fii soxna ñaaña moom itam way juram dafa génn àdduna waxoon naa soxna ndey kumba mu ànd ak ñoom eh, sëriñ Lamine sëriñ Mbaye ak ñoom Mbaye Ndoye ñu dem jaale ci fa ñu ngi jàlle ñëpp la mu mel ni nag moom ku tënku ci pas-pas am la nga war a am ku tënkootul la nga war a am dootoo ko am waaw moo ku defe ni may sa bopp la nga am da ngay nax sa bopp waaw moo ku bëgg am la nga daan am tënkul ca la nga war a tënku waaw yanu yàlla may ñuy tënku incha allah te bañ a dañ mukk nag ci biir tënku gi yàlla ko yàlla mottali wasalaamu aleykum ورحمه الله تعالى وبركاته الله يديسان بابا كان